compte la ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi ne ko <laughs> def ndànk rek <laughs> bu mu yàqamte rek seen dosamaan jarul boobante ko am. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre ci seen internet lu tv comme ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar jàkkaarloo ak Boy Niang numéro 2 wala Maguette Seck ndax tour bi nag war nga ko changé yaakaar naa changé woon nga ko sax de ah. non non. woo ko fi woon. non mosuma ko changé. ñu ngi lay nuyu di la yaa war a bari ak doomu. Jalla doomu Jalla ginnaaw loolu maa ngi sant yàlla di julli yonent bi di sant samay ñaari waajur avant tout dama nekk ci naqar maa ngi koy métti lu muy suma yaay gi nga xamante ni këram laa daan ngem boobu may bëre mbapat ba bu may bëre arène mu yaa xaddi si la maa ngi koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam féete woon na ma fu ne woon na ma fu ne mais yàlla moom bu bëggee rek ku bëgg ñàkk maa ngi hmm. koy jaale ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ko métitlu nag waaw mais di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana yóbbu ko àjjana yi gën a kaw firdaws ak papa bo papa booy jinne papaam tamit maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla xare àjjana amiin ak bépp papa bu génn àdduna ak bépp yaay bu génn àdduna maa ngi leen di ñaanal waaw di ñaanal suma yaay yal na ko yàlla xaraa jànn ak suma papa am na solo am na solo Maga Seck nga am combat sa diggante ak doomu Jalaaw ngeen waroon a bëri le 19 avril yaakaar naa ci ngeen waroon a bële pare woon nga wala pare ak seetaan nga ko dégg nga wax. waaw nekkati sa tiitaru bu bari bi yëpp nga nekk ci dëkk bi mosoo bëri grand combat. <laughs> non loolu moom loolu moom moom bu waxee kon perte repère bi ñuy wax ci moom dëgg la. perte repère waaw su waxee loolu rek gëj na ci làmb. gëj naa bëri man bëri naa six grands combats xaw ma set. Hmm. waaw. kon da lay tooñ. waaw dañ non day wax rek waxu adversaire moom. adversaire buy wax ci moroom adversaire du wax lu lu baax day xool lu koy déstabiliser rek mu koy wax noonu la fa demee. gémmiñ bi naa ci da du wax jàmm. du wax jàmm waaw. sa diggante ak moom doomu jalaaw xam nga ko. non bu baax. doomu jalaaw xam naa ko bu baax baax a baax baax. xam nga ay qualité am. moom moom moo xamul. xam na la kay. déedéet moom su nee man mënu ma ko daan moom moo ma xamul. billaahi wallaahi wataalaay ku dul doomu jalaaw maa ko man barke arxuraanu karim. ku dul doomu jalaaw yaa du ci bëre bi du ci xeex bi. moom doomu jalaaw yaa ko doomu jalaaw maa ko mën fopp. noo mën a doomu jalaaw. non dama la doomu jalaaw qualité yandaa ko daan. waaw yandaa daf ko jàpp noot daf ko jàpp noogatu ko daan man ma jàpp yandaa duma ko daan ko. Eh, kon su waxee ay mënuma ko daal loolu wax la rek te yandaa bi may bëreeg moom bi ñu sumee koo micro central dañ da leen boole ñu tolloo. billaay wallaay wa taala kon moom si wax loolu day wax lu ko neex rek. mais moom ku seetaan samay làmb moo sin xam ne ku dul moom sax mën naa kaa rey. billaay wallaay. Hmm. billaay moom tàppet la. tàppet billaay tàppet la. tàppet la mbëru loxo la benn loxo lay bëree. man naa bëre de. bi da billaahi wallaahi wa taalaahi bu ñu bëree ma jàngal ko bëre. billaahi wallaahi wa taalaahi su fekkee dañoo bëre su ko neexee ñu bañ xeex ñu jàppante bëre mais moom faw ma musal ko faw mu xeex ak man. doomu doomu jalaaw mi ma fekk tëngéej muy bëre ñoom alburi na bëri ay xale yu ndaw muy jàppante ñoom. di moom suy wax naan ay duma contact ñoom Balla Gaye ñoom Sokocine mu laaj Sokocine moom dama koo may na ko si mu wax man maay kan moom mu doo xam. de moom kay dëkkul tëngéej. de gaañu Sokocine la. soo ko si maa ngi koy nuyoo ko ñaanal combat ñaanal ko yàlla may ndam soo ko sim faral ko ak mu bi ñu de lutte Balla Gaye soo ko sim sama gayen la. non soo ko sim kay dañ ko. su ko soo contact ba booba sax su ma fekkee soo ko sim làmb ja nuyu ko man mbër làmb du ma si gan. non moom kay soo ko sim nañ ko jël tegee ko ne. voilà combat non li mu wax soo ko sim wax na la ko. na soo ko su faral dee am man lay faral ma koy xamal ne ko ni ko soo ko sim faral. loolu du problème na ko Sococim sax indi làmb ja. teel micro bi. waaw na ko Sococim té indi làmb ja suñ bëree ba pare moom dina xam ni affaire du Sococim du man. mais lan ngay sous-estimer ak doomu Jalaaw ni da nga koo man ba koy sous du ay man de waxuma waxewuma ci man moom li mu foog laa koy wax ci làmb. Hmm. doomu Jalaaw buñ dajee woon buñ xoolal buñ ñu ëffaloon man ak moom. Hmm. bu dawul du ma daw. kon hmm. na réglé bu mu wax ay làmb man comédien man comédien wu ma man 26 combats laa bëri 6 défaites comédien wu ma. làmb moo ma fayut nag làmb fayu ma mais xamal la moo ma bàyyi si làmb sama sama jàmbaar ak sama ñu bëri dañ may wax loteree tukki loteree kii. Hmm. mais làmb man dama see war a mën a am dara. te dinaa ko fi xaar ci kàttanu yàlla mu fekk ma fi. te doomu jalaaw du ko téye li ma si war a am doomu jalaaw du ko téye munu ko téye. Hmm. waaw. kon amul sens ci combat bi daal. non doomu jalaaw day delluwaat ci saako bi rek. dafa gëj a bëre su ñëwee damay xeex ak moom xeex bu tar. tribune bi yëpp yuuxu. mu bàyyi ma daan ko su ñëwee dañuy xeex far force balaa ñoo bëri dañuy xeex. man maay xeex dañuy xeex man ak moom ci làmb jii lu tax nga bëgg a xeex. waaw day teg gauche day teg droite ma teg gauche dañuy xeex force balaa ñoo jëlante faaw ñu ñamante. daa mel na nga ko mere sax te dara xew. non non du ay mere moom buy wax na wax ci man lu nice man fii booy fi départ yëpp maa leen freiné sooy wax si nit da ngay wax si nit loo xamante ni xam nga lu ma la soo leen bëree ba pare duñu ay noonu làmb moo ñu boole. Mhm. moom mu gëj a bëre kenn xamatu ko. mu war a ñëw ci làmb ji neexal làmb ji bis bi ñëpp mën a ñëw stade. nee amateur bu ñëw stade man maa ko indi. billaahi wallaahi wa taala te mu la neexee nga def nga def nga def micro trottoir soo demee Sandaga boo demee fépp foo dem ku ñëw ci làmb ji man maa ko indi. ah nee na yow tamit kenn xamula non loolu bu ko waxee yow xam nga ni loolu amul. nee na ndongoloo tax sax. mu jël dama léegi yow dama lay laaj yow boo ñu doon teg man ak doomu Jalaaw ah. Hmm. ci diggante at yi kan nga ci xam. bu dee man kay yéen ñaar ñëpp xam yow tey jii bu la woon interview ñu jox doomu jalaaw kenn amul combat doo dem ci doomu jalaaw xamoo ko xamoo doomu jalaaw doo ci dem. bu la boo bu bëriwutu woon ak man doo fa dem. yow doomu jalaaw kañ la bari ayaat demoo fa li mu bëreeg man moo tax ñu nga dem fa te combat bi su neexee si man la dama bëgg a ne àdduna man du ma mag. booy bu ndaw laa te si combat bi laa koy wane. da ngay wane sa bopp ci combat combat bii si laa koy wane. ci xeex ak ci bëre yëpp. ci lépp lu mu moom lu mu bëgg man bëgg lu mu bëgg nañ ko signé bëgg naa ko man làmb dama bëree ku nekk dama bëri làmb yu metti mm-hmm. daj ci làmb ay coono lu ma làmb fayul. Mm-hmm. waaw man nag làmb lii ma dese nii si làmb dama koy ñëw teg ko ci lu wóor teg ko ci lu leer te su làmb jaa suñu bëree man ak moom ba pare yow di ma dégg an micro ni ma màgget màgg nga. loolu nga ma waxoon de no loolu garaawul sama combat mën a kolifay làmb la rek làmb làmb ju ma pare woon amoon ci confiance perte ko loolu loolu mënu ña 2019 mais bëre qualifier dama bëre 2019 ba 2009 bi ma bëri ci ay 10 combats qualifier daan na ci loolu mënu nekk làmb jamono kenn mënu tegal ay kenn mënu tegal ay victoire. kenn mënut daan waaw. man ba may bëreeg boogaa boobu booy bu ndaw laa bëreeg moom Amadou Bari grand combat daan ko. boogaa borom États-Unis waaw Ahmed Bombardier bi ñuy bëree man ak moom bi mu sumee ko dañ ne ma jàpp duma ma du ko daan ko. Mhm. yandaa bëreeg yandaa bëre bu metti bëreeg ay mbër bëre yu metti mhm. kon nag suy wax na wax wax joo xamante ni xam moom moo am. Mhm. balaa ñuy woon wax dara sax dañoo waroon a ñaan ci li dal Sénégal yàlla. corona bi def ci ndox mu sedd def ci bépp dëkk. ndox mu sedd mais waxtaan xama rek fugg moom. ci làmb lañu nekk di wax amoo mbër yi moom léeg dañuy dof benn cinq minutes ñi ngi jéggul loolu. te da ngaa yàkkamti waay waaw ñi ngi ñaan kaay yàlla na gën a gën a gën a wàññeeku. ci kàttanu yàlla xam waaw feebar bii am fi. yàlla na yàlla bu mu fi amati. yàlla na ko yàlla def ñu xam li koy saafara léegi léegi. am amiin la demee waaw ma ma ma laajaale la tamit ci actualité. Soumboulou sa xarit mooy coow ci dëkk bi la instant bii. suñu jigéen la suñu xarit la te xamewuñ ko mosuñu koo xamee wax bu tegginuwul bu ci théâtre yi sax lu tegg na rek lay def waaw kon am na loo xamante ni su ko defee su ko waxee wax moom xam nga juum dafa juum daal te xëy na moom na mu ko waxee woon ak ni ko nit ñi di jàppee sax mën na bañ a nekk benn maa ngi ñaan képp koo xamante ni xam nga wax bu sumbalu bii dafa la laal su ñu ngi lay jégglu di la baalu ak te sumbalu xam naa ni nii ma ko waxee noonu la koy defee ku yaru la gunaas la juddoo gunaas la yaroo gunaas la màggee musuñu koo xam ci ñàkk fayda musuñu koo xam ci lenn ci liggéey lañ ko xamee ñu ak ñoom ñoo yarandoo màggandoo mu nekk koo xamante ni xam nga ñëpp kuy yar kuy wax sa doom danaa ko jéem a la mel ni sumbul. kon ça veut dire loolu lu nice la. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaan nag xam avant la parler il faut bien réfléchir. Mm-hmm. balaa ngay wax dara da nga koy xalaat xam mooy loolu quoi. Mm-hmm. waaw noonu la fa demee. waxul daal pour pour blesser kenn waxul pour blesser kenn. non ah. waxul woon pour blesser kenn. non waxul kenn xëy na ab feebar bi am moo ko tiital sax mu waxee noonu rek. mais moom melul noonu waaw mu ngi jégalu ñëpp ñun ay ñun dëkkandoom ñu ngi jégalu xam ne di leen wax ne nag melul noonu fii mu nekk. Hmm. melu fa noonu. am na solo lan ah. géejawaay mbëri bëri wuñ de. waaw géejawaay làmb ji feebar bi am balla non balla moom balla moom. balla moom nañ ko toog nañ ko bàyyi rek muy nelaw nañ ko bàyyi noonu rek. muy nelaw muy ñëw di waaw muy na ñëw di toog di ko di ko di ko di ko denc. xanaa dafa am ngeen namm. waaw dañoo namm waa combat yi nga mag yu baax. yan la yan yan ñooy combat yu baax yi. combat baax yi Balla Gaye mën naa bëri ak ñu bëri ci làmb ji. li man non mën na bëri ñu bëri Balla Gaye mën na bëri ak Eumeu Sène. waaw Eumeu Sène non attends mën na bëri ak Bombardier. Eumeu Sène Balla Gaye mën ah. Eumeu Sène nee mën na bëri ak Bombardier. waaw Balla Gaye Balla Gaye mën na bëri ak na bëri ay yeneen bër. Gris waaw. mën na bëri ak Gris. Balla mën na bëri ak Gris. bu neex a noonu. combat jànq nag combat jàng combat moo giri combat jàng la. moo moo moo kii giri bi ñu dajee gis ni meloon. te combat boobu ku ci def sa xaalis doo ko réccu. moog booy ñaa la. non moog booy ñaa ñun ñoo ko bëggul ko bëggul waaw. moom bëgg na ko moom bu bëggee bu bëggul ñun ñoo koy ñun dañ koy wax ni ko combat bi ñun bëgguñu ko. moom amul lu muy bëgg lu muy bañ moom amul lu muy bëgg lu muy bañ. noonu la demee rek làmb moom xam am na mbër yoo booy ñaa li mu def sa très normal di yóotu Balla Gaye c'est normal mën na nekk mais nag Balla Gaye bu mayee sens heure bi teel na si moom. am na ñeneen ñu mën a war a bëre. da koo yootu wala dafa agsi. da koo yóotu moom. da koo yóotu trop. tafaatin mi ngi fi na bëreeg Tafatine. waaw mën na bëreeg Tafatine. bu bu daanee Tafatine nag moo Balla Gaye mu nekk combat ba mu soog mais ñu ngi la ñu may sens fan yee nga échec nga bëgg a ñëwaat xam nga moo tax làmb ji daal moo am nday ku ma nday am ma nday ku ma amul baay soo waxtee nag nit ñi ni wax na wala lii na. mais man làmb ci yoon bokk boo sa carrière soo daan soo bëree daanoo tafaatin daanoo Malick ñaa loolu moom xam man mooy loolu waaw. Hmm. ama ni mu def daal xaw naa ko zem tuuti waaw ndaxte carrière am dafa dafa def ay mbër am mbër yoo xamante ne ay mbër yu làmb yaakaaroon mu jaar si. waaw moom it sonal na waa Géejawaay waaw booy ñaa def booy ñaa waa Géejawaay la daan daan na waa Géejawaay loolu kenn weddiwu ko waa Géejawaay daan nañ ko tamit moom na ko nangu. noonu la fa demee. Hmm. làmb moom xam noonu rek la deme te man booy ñaar damay toog sax ñu may wax na maay da nga booy ñaar da nga kii. billaahi wallaahi wataalaahi barke Seydina Muhammad su fekkee bañ naa booy ñaar sama làmb ji ma jëm yàlla bu ma am ndam. non munoo koo bañ. sax xam lu ma lax baax. Hmm. munuma ko bañ. Hmm. sama mbokk géwël la. sax xam lu ma lax baax. loolu rek dafa rëy. seen juróom-ñaari mag waaw ñu bokk ñu tuddee loolu rek dafa rëy. mais am na loo xamante ni man sama deret la man géejawaay laa dëkk. dëgg la loolu am na solo. waa léeg-léeg damay dem samay mbokk sax ñu may laaj loolu nan la kii nekkee sa mbokk nga bañ ma ne ko làmb amul loolu làmb ak gox la. waaw ah suñ dajee metti mais suñu paree yéenante bi yéen booy ñaar li mu am nii c'est man fier naa loolu ñaan naa yàlla am loolu. bu leen sa fier nag. ndax. waaw yow loo bokk ak liiru liiru caa ñoo bokk ndey ak baay waaw. bu leen sa fier kon booy jëlee ma booy bi wan ma wan wan ko wane ko booy boobu booy bi léegi bi lan moo tax ngeen bàyyi ko mu nekk seen mbir. booy ba booy bi léegi booy bi ñuy seetaan kan lay nuróol kii kan lay nuróol. waaw kii kii booy ñaa lay nuróol nekk booy boo xamante ni tamit xam nga. moom ah. ci ci bëgg nit la toll ci faa nit faa booy ñaa loolu du dara. yoon la man tey jii su fekkoon damay bëri di bëreeg booy ñaa man duma ko moytu. kii xale la. Mm-hmm. kii ñun du ñu ay moroomam. booy la. ci faa la toll. ñun jamonoy Tyson Balla Gaye daf faa woon Tyson kii faa Bombardier kii moom ci jamonoy faa la toll mbër gi nekkagul ci moom ci jamonoy faa la toll mais su demee moom ba gëm boppam daan daanaat gëm boppam doo ko Balla Gaye ba bëriwut ak te gëmoon Tyson bëgg ko mais làmb soo commencé di daan xam ni mbër gi mi ngi ci yow su boobaa da ngay xam gëm sa bopp nag. te làmb day am lu la ci dugal kenn waaw loolu la demee. day am ñu la ci dugal. voilà da ngay faa nit bëgg ko moom booy ñaa la bëgg dugg si. Mm-hmm. kon kii ñun suñu rakk la. Mm-hmm. suñu rakk la. tey jii su Boy Niang doon bëre keneen suñu rakk la lu ñu séq ak Boy Niang li jënd wuñ ko ñun ñu séq ak yeneen yi moom ñun li jënd moom li jënd wu ko. moom ku am combat dina yem fu mu war a yem parce que ñun ñëpp dinañ ko woon ko yemal fi nga war a yem du dem kër mbër bi muy kii du yoonam dina ko dàkkal foofu. ok voilà moom nag na ko mbër làmb bàyyi xel. Hmm. waaw. am na solo. na ko làmb bàyyi xel. kontaan naa ci yow ana am jom la. liiru xale bu ñeme entraînement la. ana liiru. waaw ana liiru. règlement de compte la ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi. ne ko let's go. def ndànk rek. <laughs> bu mu yàqamte rek seen doosamaan jarul bëggante ko